yàlla bil Mustafa sindi billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim allahuma bi aqi wajillahi taala alkarimi salli wa sallim wa barik ala sayidina moolana muhammadin wa ala alihi wa sahbi wa sallama tasliman asalaamaaleykum yéen mbokk jullit yi rawatina yéen mbokk taalibe yi ñuy teewlu fii si réew mi bitim réew bi di leen jaajëfal saa su nekk si ànd bi ngeen ànd ak ñun di teewlu seen télé Mafaatihul Bichri TV di télé bi nga xam ne dafa nekk si lépp luy tey waa kër Serigne Touba Xaadimu Rasuul ñoo ngi siyaare Serigne Touba Cheikh Sidi Moutar Mbacké di di ko ñaanal Serigne Cheikh Jëm Fall di xalifa bu maam Cheikh Ibrahima Fall ak euh, njabootu euh, Serigne Touba yëpp ak mboolem Cheikh ak mboolem kilifa diine ak mboolem kilifa aada yi mbokk taalibe bi tey ñoo ngi fii si euh, guy Masaalikul Jinaan guy Masaalikul Jinaan nag boo ko déggee di jumaa ji nga xam ne Serigne Touba Cheikh Sidi Moutar Mbacke moo koy liggéey maam ju baax ji ba tey tey ñu nekk fii si gox bi fekk si seen émission ziar daara fas yéene fekk si fii waa daara Masaalikul Jinaan di daara bi nga xam maam. ba mu fi sante ñoo ngi fii si jumaa ji di fi góor xasaay di yooyu yooyu xanaa ñu bàyyi la ngeen daal toolu kuréel bi incha allah si noppee ñu jublu si waxtaan bi jërë ngeen jëf Yàlla

yéen daara Masaalikul Jinaan maanaam suñu boom dogal fii di bërëb bi nga xam maanaam bërëbu rootukaay la te bëriwaa ne euh, événement murid yi fi xew euh, bëgg naa xam yéen daara ji lan mooy seen taxawaay fii si jumaa ji ak bési murid yi di am fii. ziare bu baax bu ko jullit yi ñu ngi ziare sëñ Sidi Mokhtar di ko ñaanal yàlla na gudd fan te jumaa ji liggéey bi daanaka li ci ëpp ko def ndax liggéey bi El ji Baara moo ko taxawoon bi mu fi jógee nag ñu joxoon ko El suñ euh, suñ Cheikh Mati lay gàddu liggéey bi daanaka boobu léegi nag ñun ci lañu fi nekkoon liggéey bi tàmbalee bi mu dooree rek bi sëñ bi woote ci lañ fa nekkoon boobu la nekk ci ndaw ñi waaye ñu daan dégg alaaj Mbàkke Faye mi nga xam ne moom la sëñ Tuubaa teg mu daan ne dama bëgg kuréel am fi ndax fii ci masaale kuréel dafay yàlla dañ jéem a fexe kuréel am fi boo déggee ndigal loolu laa xam ne loolu ndigalu sëñ Tuubaa la ndax moo fi nekkal sëñ Tuubaa ma dox ci loolu dox ci loolu bi ñu taxal kuréel daanaka métti woon na ndax nit lañ daan fii rek ay ñaar ba ñett ñoo xam ne ay jiin leen daan sol ñi ay kap ñu dajale leen fii rek pour bëgg rek ndigal loolu mu joxe ñu xam ne lii ndigal Sëñ Tuubaa la war nañ cee mën a am ngërëmal Sëñ Tuubaa ñu taxawal loolu bu ñu ko taxawalee ab diir ndax daanaka le le deux le deux le vingt sept deuxième mois deux mille douze su ma juumul te lañ tàmmaloon liggéey bi te yaakaar naa boobu léegi-léegi mu mat ñetteet di dox di dox ba fii man ma ànd ko ay jàmbaar nag ñoo xam ne bëgg nañ liggéey bi lool ndax saa su ne ci chaque semaine ñu ngi répété mardi su ma juumul ak samedi semaine boobu ñu chaque semaine bi ne ñaari yoon répétition te liggéey maanaam Masalik li fi am lépp dañ fiy jàng ndax sëñ bu taxaa dafiy faral di ñëw chaque weer wala ñaari weer bu ne bi liggéey bi tàmbale ba léegi te fi ñëwee njàng bi ñoo ko yor ci colloque bi international bi njëkk a def deuxième colloque bi fii lañ ko doon defee si Masalik te daanaka ñoo ko jàng juróomi fan la woon juróomi fan yëpp ñoo ko ubbi ñoo ko tëj te boobu kuréel gi daanaka matul ñaanat sax te loolu lañ ne ci loolu lañ ne ba léegi daanaka événement yi fi am yëpp événement bu fi am rek kuréel gi dina fi barkelu léegi ñu invité ñu génn ci bitit waaye événement buy am masali rek ñun dañ ci barkelu sëñ Muntaxa bu fi nekk it yi mu fi nekk yëpp souvent bu fi nekkal ñaari fan la benn fan dañ fi barkelu événement yi ñu fi def rek kuréel gi yàlla day def ñu ñu barkelu fi loolu daal mooy suñu liggéey te ay jàmbaar lañu wax dëgg yàlla ndax boobu ba léegi kuréel gi yàggut waaye xale yi ay ay jàmbaar lañu ay murid saareex lañu ndax boobu ba léegi ñu ngi jàpp liggéey taaw ko rek kenn nangu da bàyyi ndax boo xoolee fii ci Masalik dafay dafay kër sëñ Tuubaa gën a rëy ci Ndakaaru kon war nañoo am méngoo kuréel goo xam ne day méngoo ak Masalik ci loolu la ñuy dox nag boobu ba léegi te ñu ngi ciy am tawfeex sëñ Tuubaa loolu daal laa waxoon naa ko sant xam naa ba nga laaj leen rek. jërëjëf sëñ Matar. ziare bu baax mbokku jullit ñi ñu ngi ziare sëñ Sidi Mokhtar di ko ñaanal yàlla na gudd liggéey bi daanaka li ci ëpp ko def ndax liggéey bi Alaaji Baara moo ko taxawoon woon mu fi jógee nag ñu joxoon ko ala si sëñ sëñ Cheikh Mati lay gàddu liggéey bi daanaka boobu léegi nag ñun ci lañu fi nekkoon liggéey bi tàmbalee bi mu dooree rek bi sëñ bi woote ci lañ fi nekkoon boobu la nekk ci ndaw ñi waaye ñu daan dégg Alaaji Mbàkke Fay mi nga xam ne moom la sëñ Tuubaa teg mu daan dama bëgg kuréel am fi ndax fii ci masaalik kuréel dafay yàlla dañ jéem a fexe kuréel am fi bu ma déggee ndigal loolu laa xam ne loolu ndigal Sëñ Tuubaa la ndax moo fi nekkal Sëñ Tuubaa ma dox ci loolu dox ci loolu bi ñuy taxal kuréel daanaka metti woon na ndax ay nit lañ daan ñoo xam ne ay jiin lañ daan sol ñi ay kap ñu dajal leen fii rek bu bëgg rek ndigal loolu mu joxe ñu xam ne lii ndigal Sëñ Tuubaa la war nañ cee mën a am ngërëmal Sëñ Tuubaa ñu taxawal loolu bu ñu ko taxawalee ab diir ndax daanaka le le deux le deux le vingt sept deuxième mois 2012 su ma juumul te lañ tàmbaloon liggéey bi te yaakaar naa boobu léegi-léegi mu mat ñetti at di dox di dox ba fii man ma ànd ko ay jàmbaar nag ñoo xam ne bëgg nañ liggéey bi lool ndax saa su ne ci chaque semaine ñu ngi répété mardi su ma juumul ak samedi semaine boobu ni chaque semaine bu ne dinañ am ñaari yoon répétition te liggéey yi maanaam Masalik li fi am lépp dañ fiy jàng ndax sëñ bu taxaare fi faral di ñëw chaque weer wala ñaari weer bu ne bi liggéey bi tàmbali ba léegi te bu fi ñëwee njàng mi ñoo ko yor ci colloque bi international bi njëkk def deuxième colloque bi fii lañ ko doon defee si Masalik te daanaka ñoo ko jàng juróomi fan la woon juróomi fan yëpp ñoo ko ubbi ñoo ko tëj te boobu kuréel gi daanaka matul ñaaraat sax ci loolu lañ ne ci loolu ne ba léegi daanaka événement yi fi am yëpp événement bi fi am rek kuréel gi dina fi barkeelu léegi ñu invité ñu génn ci bitit waaye événement bu am Masalik rek ñun dañ ci barkeelu sëñ Muntaxa bu fi nekk it di mu fi nekk yëpp souvent bu ful nekkal ñaari fan la benn fan dañ si barkelu événement yi ñu fi def rek kuréel gi yàlla day def ñu ñu barkelu fi lool daal mooy suñu liggéey te ay jàmbaar lañu wax dëgg yàlla ndax boobu ba léegi kuréel gi yàggut waaye xale yi ay ay jàmbaar lañu ay murid saareex lañu ndax boobu ba léegi ñu ngi jàpp liggéey taaw ko rek kenn nangu da ndax boo xoolee fii ci Masalik dafay dafay kër Sëñ Tuubaa gën a rëy ci Ndakaaru kon war nañoo am méngoo kuréel goo xam ne day méngoo ak Masalik ci loolu la ñuy dox nag boobu ba léegi te ñu ngi ciy am tawféex Sëñ Tuubaa loolu daal laa waxoon naa ko sant xam naa ba nga laaj leen rek. jërëjëf sëñ Matar. sànq say wax dégg naa nga naan ma euh, juróomi mbàkk fay moo taxawal euh, kuréel bi est que te te sa biir wax tam dégg naa nga naan gars yi bu ñuy tàmbalee maanaam yenn col yi dañu col comme mën nañu wax bu ñuy tàmbale maanaam xawoon naa am ay jafe-jafe. Sëñ Tuubaa buy tàmbali boo amul jafe-jafe rek daanoo dox liggéey bi moom li koy maanaam liggéey boo gis rek mu tàmbali sotti rek xamal dina am gàllankoor ñuy tàmbali rek métti yoon loolu ba ba jusqu'à sax daanaka liñ ci bëgg dëgg-dëgg sax amaguñ ko ci ndax fi ñu dañoo dox ci kuréel rek la woon waaye fi ñu dañoo bëgg a dox ci liggéeyal Sëñ Tuubaa doxal ci mbo ci daayira ci lañ nekk jamono yëpp di ko tënk pour liggéey ci liggéey bi nag daanaka metti woon na waaye sëriñ bi dimbal nañu ba am nañ tawfeex Sëñ Tuubaa ba daanaka metti metti li ci ëppoon daal romb nañ ko moom ci ëppoon romb nañ vraiment gars yi jàmbaar lañu ay ñu ngi góorgóorlu ñu man pour liggéey bi dox daara ji la mooy taxawaayam fii si jumaa ji ndax boo seedee kon ni ma la ko waxoon sànq fii bëri na événement yi fi am te wàllu joxe itam ba su yàlla sàkk ndongo yi ak murit ñu ngi ñëw di joxe yéen ban taxawaay ngeen am fii si jumaa ji waaw rek mooy liggéeyal Sëñ Tuubaa rek ndax xam xëy na ñun li ñuy suñu mooy jàng xas loolu rek moom moom mooy suñu taxawaay ndax daanaka fi ay pàcc lañ ko def fii Masalik kenn ku am na ci lone ñun nag suñu liggéey mooy jàng xasida loolu loolu moom yaakaar naa ñu ngi ci liñ ci war a dox lépp ñu ngi koy dox ñu ngi répété ñu ngi góorgóorlu ñu ngi génn ñu ngi góorgóorlu ba buñu loolu moom mooy suñu liggéey ñu ngi ci jàng rek moom lañ fi mooy suñu liggéey ci Massalik te ngi ci jërëjëf sëñ Matar si am solo yoolee li nga xam moom daanaka moo di dëgg ndax xasida day moom ginnaaw alxuraan leen gën ko kawee ba tey nag xasida moom la ñuy daal euh, dugal suñu jëriñ di sañ Moussa Dia moo nga xam daanaka bokk si daaj daajkatu kuréel daara Massalik Jinaan ba bare yor kàddu ko yëpp sëñ ginnaaw nuyu bu la nuyoo boo noppi sànq daanaka man seen jàng si dama see xaw a daanu ndax daanaka ay heure yu ma neex laa fa jot dégg. Euh, yan euh, d' après seen jàng ba mu ko dégloo moo ngi mel ni Hizbut-Tarqiyyah ngeen di roy de. waaw maa ngi nuyu mbooloo mi yëpp kenn ku nekk si tur ak sant di ñaanal sëñ Sidi Mokhtar Mbacke mu yàgg fi loolu te ànd ak wér bi bépp na boo xam ne ak bépp naal boo xam ni def na ko ngir liggéeyal sëñ Tuubaa rek ma ànd ko ñun te eggale ko te jiit na ci ay ati ati ci barkeb Seexul Xadim mi nga xam ne mooy maamam moom mi nga xam ne moom mooy liggéeyal moom la ñuy ginnaaw ba yéen nag nag seen mbokki taalibi lan te seen dong rek lan ginnaaw nag ci wàllu njàng mi moom daanaka tënk wuñ ci benn daara ni maam daara ji la ne kii maam suñ ci waa daal la ñuy liggéeyal waaw mag ñi nag leen ëpp ci loo xam ne ndax daaj bu ci nekk daanaka ci mag ñi leen koy jëlee lu ci mel ni madal xabiru sëñ mayib la mooy original sëñ mayib bi bokkut ak Baye Mbacke Diagne bi sëñ Mayib la waaw ak Maram Mina Baye Aliou Fall moom lañ fi doon jàng waaw moom daal loolu mooy daaj daal mooy daanaka tënkuwul ci benn daaj waaye lu si ëpp nag ci njàng mi daanaka Hizbut Tarqiyyah bu Daaru Xudoos daal leen ëpp loo xam ne si daanaka danañ tënku ci li tax ñu tënku ko nag mooy wàllu araf yi moo tax ñu ñu daal ñu ñu ko ñu xaw cee kii daal donte ñëpp nag ñoo ngi koy def waaye dañ ci gën a dégg daal mu am ak wuute daal ci loo xam ne arafi daal day gën a wér te day gën a leer daal te ci ngay dégg-dégg bi ci lay gën a surtout ku ni nag maam beneen kii mun kii waaye kenn ku nekk am nga moom sañ-sañu kii daal loolu daal moo ñu dugal daal man moom la ëpp lu nii kii daal. jërëjëf sëñ Moussa si léegi wante euh, si mag ñi yéen euh, daanaka tàng jot naa dégg si waxtaan nga ne sëñ Massamba euh, léegi est-ce que parce que sànq tamit seen wàllum jàng maam dem say dégg air eh, yu yu wute comme ni nga ko waxee sëñ May Beeg eh, ak sëñ Mbacke Fall bi ak bu saanaa sëñ Massamba ak Baali Fall léegi yéen yan yéen eh, Daara ban daaj ngeen di gën a jàng si ngeen gën a vocaliser wu. yu si ëpp nag daanaka soxna Fadja la soxna Fadja daanaka jinaan ci la nekk nii sax doon ci répété ndax dafa bëri ay kii daal ay version waaye nafaale xëy bi daal yi nga xam ni. ci niñ ko déggee ci mag ñi moom leen ëpp li ñu doon li nga xam moom la jàng li ci ëpp ci li ñuy jàng moom daanaka mafaatixu jinaan la daanaka moom daal lan ëpp ci li ñuy jàng daal te tamit moom la ñuy moom la ñuy tamit dana kii nag ci yeneen air waaye waaye daanaka du bëri daal. si Moussa su ma doon laaj njàngum démb ak njàngum tey maam la nga ma si toon si ute gi su nekk. ah ute bi de bëriwul xanaa xanaa bu weesoo materiel bi fi nekk daal. xanaa ak baat yi ak yenn des fois nga dégg daajo yoo xam ne day neex lool mag ñi nag xanaa ak kàttan gi nga xam ne moom lañ daan jàngi ak kàttan gi nga xam ne si moom la kii moom moo xaw a wute waaye daanaka air boo ci dégg daanaka boo gësoo ba ci biir xanaa sa boo gësoo ba ci biir daal da nga xam ne am na mag mu ko jàng daal xëy na mën nanoo mën na mën nanoo jàng bañ a jàng yax bi dëgg dëgg dëgg waaye danañ foog ca mag moom nga xam ne ca lam jàng boole koog li nga xam ne moom lañ jàng systématisation yi nag aw na bëri lool <laughs> xaw na xaw na bëri lool waaye daanaka kenn ku nekk ak sa yëg-yëg la rek mooy li ma doon wax sànq buñ buñ defee benn son boo xam ne dañ ko systématiser daanaka boo xoolee ba ci biir dana am benn mag moo xam danañ sàcc dañuy dañuy jël fële jël fële rek boole ko bëri na ci yoo xam ne mën nañ ko mën mën nañ koo kii daal waaw ñun doon nañ ko jéem a def sax waaye dafa am ci mbooloo mi ñoo xam ne dañu woon daal comme que mag ñi ña ngi fi moom te muy lu wérit comme que mag ñi ña ngi fi moom nañ tënku ci mag ñi rek daanaka tëlewuñ ko nag waaye doon nañ ko jéem waaye dañ ne woon mbooloo mi daal doon sàkk woon ci xam ne dañuy jël eeru mag ñi rek di ko jàng bëri na lool lool lool nag bëri na lool lool ci ñi ko xam ne ñu ngi koy def muy ci daara yeeg ci kuréel yeeg ci daayira yeeg ci yëpp daal daanaka day mel ni daal boo boo boo génnewul sa eeru bopp rek day mel ni daal jàngoo te te man jàpp naa ne loolu daal ndax eeru mag ñi daanaka fan nekkoon ba léegi ma nga fa foo ko jàngi daal ma ngi fi te boo demee ci kër kilifa yi tamit di ko jàngal daanaka eeru mag ñi nga ko koy jàngal jërëjëf sëñ Moussa si leeral gi mbokk taalibe yi ñoo ko déggandoo daanaka euh, ni mu ko waxee rek mag ñi moom ñoo tax ñu wax xëy na systématisation baax na waaye nañ dellu si mag ñi ndax mag ñi daanaka ñooy ñooy suñuy bàyyi si wàllu jàng ndax boo seetee moom wax na wax ju am solo wàllu systématisation ndax systématisation maam dafa bokk si yoon bi ndax nit loo jël créé ko systématiser ko daf fekk benn mag bu nëbb nga jël am yoo si dolli wante baax na wante nañ dellu si mag ñi noonu la jaar rek den euh, fàttali yéen a ngi seen émission ziar daara yi te ñu dalal daara Massalikul Jinaan fii jumaa Massalik sëñ Matar euh, daara euh, dafa am ni muy doxee te sànq dégg naa nga ne ma moom daara bañ ko sante yàggul yéen si wàllu social ak wàllu culturel euh, na ngeen si doxee yéen. waaw wàllu social li nga ci wax wàllu social moom comme daara yi ci daara yëpp ni ñu ciy doxee rek lañ ciy doxee. ku am ngénte wala nga am xew mbooloo mi dem jàngal la. bu ñu amee dara loo xam ne daje nañ ko ñu jël ko jox la ko addiya loolu daal daanaka loolu lañu di ci ëpp daal mbooloo yëpp loolu yu mag yëpp noonu la ñuy doxee ñun foofu lañu teg suñu liggéey rek ku ku fi sa waajur liggéey wala nga mbokk wàcc liggéey mbooloo mi dem jàngal la bu dee am lu ñu la jaaree ñu jaaree la loolu daal mooy suñu suñu liggéey ci wàllu ci wàllu ci wàllu social yaakaar naa mbooloo yëpp noonu la ñuy ci wàllu social jërë ngeen jëf mbokki taalibe yi xanaa di leen fàttali rek yéen a ngi ñu deewlu seen émission ziar daara yi Euh, ba tey dañuy wéy si waxtaan bi rek ñu ngi toog sëñ Abdou Lahad Diop Xabane mi nga xam ne moo féer wàllu culturel lépp luy wàllu jàngal si jumaa ji rek euh, moom moo ko féetewoo sëñ Abdou Lahad ginnaaw bi la nuyoo ba nopp yow yaa yor wàllum jàngal wi bëggoon nañu xam yan nga fiy jàngal fii si daara Masaalikul Jinaan aouzu billahi min asheytaan irajim alhamdulilahi lazi minna talab ixlaasa sayin wa maraati al adab man yanzuru al xuluba waa saraira duna allazi minna ثم صلاة مع سلام يتبع على الذي فينا غدا يشفع من بفضائل الهدى تحلى وعن رزائل ردى تخلى محمد الكاشف عنا الغمة وآله وصحبه والأمة وبعض أيها الإخوة نحييكم بتحية أطيب وأزكاها من التحيات وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk yi ginnaaw bu ñu sante yàlla ci ni mu gën a yelle njukkal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di gërëm sëñ Tuubaa bu baax di ko sant ci li nga xam ni defal nañu ko te mu jomb ñu lool bu ko defee it ñu ngi leen di ziare yéen ñi nga xam ne yéen ñëpp yéen a ñëw tey Bichri TV ànd ak ñu liggéeyal sëñ Tuubaa bii moom ku koy liggéeyal dañ lay wax ne rek ne la ñaanal gudd fan lañ lay lañ lay wax waaye du jar ñu lay ñaanal ngërëmul yàlla ndax li olof yi wax naan doomi ñay kenn du ko ñaanal rëy gudd fan lañ koy ñaanal kuy liggéey suñ Tuubaa it noonu lañ koy def dañ koy wax naan la yàlla na nga gudd fan te nga sax ca waaye kenn du la ñaanal ngërëmul yàlla ndax loola dana am ci liggéey suñ Tuubaa lay amee su ko defee it barab bii di barabu suñ Tuubaa di barabu lislaam boo xam ne yàlla suñ borom subhaanahu wa taala moo ko tànn ci tànnee tànneefam gu màgg googee jox ko lislaam waaye ba mu koy jox lislaam it koo joxandoo ñëpp mënu koo tegandoo ci loxo yi ñëpp mu teg ko ci loxol Sëñ Tuubaa ngir ummatul islaam yëpp jot ci loola it lu neex a dégg la tey ab daayira boo cay joxe dara doo dem ku ne nga jox ko waaye da koy jox jëwriñu daayira ba rek suñ borom bi mu nammee jox pàkk bi waa lislaam da koo jox jëwriñu lislaam mooy sëñ Tuubaa xaadim rasul ci biir loolu it ba mu amee te sëñ ku ne xam na ni mu daan doxe magi taalibe yi nga xam ni nekk nañ fi tey saytu barab bi jiitu ñu nekk suñu raïs ci barab bi ñooñee ci seen gis-gis ak seen xalaat yu rafet yoo xam ni ci kondiru sëñ lay dox ñooñee ñoo saytu ni kon kër sëñ Tuubaa war naa am njàngum xasaayit di ko yëkkati di ko durus waaye war naa am njàngum xam-xam moo xam ni ci la ñuy saytoo di ci fàttalante ndax ñu mën koo teg ci njàngalem Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci biir loolu lañ noosewu def daayira bu mag boo xam ne ñëpp a ci tàbbi ñu koy wax Masaalikul Jinaan mu am ay lijaan yu bari lijaan yooyu mu am nag maanaam ay wàll yu bari da caa bokk wàll goo xam ne moom lañuy tuddee wàllu njàng ak njàngale xel yëpp dëppoo ci ni nañ ko teg Abdou Lahad Diop xabaan bañ ko waxee mu diis ma lool am koo xam ne dafa ñëw ba ci sama wet ku mel ni sëñ Maxtaar Jëng mi ni ma sëñ Tuubaa moo lay liggéeyloo kon loolu jërul jërul gedd waaye sëñ Tuubaa jëm ca tudd tax ma xam ne énergie bi sëñ baa moo ma koy jox rek ma saytu ko ba ma demee it ma xoolaat xam ne njàngaleem Sëñ Tuubaa mooy taddalist ci mboolem njàngale yëpp lu ñuy jàngale rek njàngaleem Sëñ Tuubaa moo jël pied téere yi ma fiy jàngale mooy tasawudu sixaar tasawudu subaan jawharu nafis masalikal jinaan nahjul xadaayul xaaj ak masaalikul jinaan ak li ñuy wax mawaahibul xuddus yooyu téere mooy yi nga xam ni moom lañ fi jàngalee dinañ fi jàngalee téere bi nga xam ne moom la ñuy wax saadu tulaab nga xam ne moom mooy wax moom la ñuy wax xaayida maanaam moom la ñuy wax xaayit xawaanit mooy naxu lu jëm ci wàllu naxu baat bu ne na muy tëggoo ak nuñ koy maase ak yu noonu loolu it dañ ko fi dañ ko fi jàngale waa waaw njàngale mi nag dana am bis bu set ba mu des juma ak gaaw ak dibéer nga xam ni su ma jógee fële may jàngee ci école Sëñ Murtala bi nekk Guédiawaye ñu koy wax markaz Sëñ Fallou suñu xaarim loo nekk directeur ba ñu ngi koy ziare bu baax boobu laay jógee ñëw fii à partir de 5 heures lañ fay tàmbale njàng mi ban julli gee ba pare ci altine talaata àllarba ba alxames bis ni ko tey ci la ñuy kii nga xam ne suba ak ginnaaw suba yëpp ak ginaawaat suba amul amul jàng noonu la cours yi demee waa ñoo ngi jéglu bu baax. jërëjëf euh, mbokk taalibe yi kooku noonu doon wax moo di suñu xabaan Diop moo lépp luy wàllu culturel fii si euh, jumaa Masalik euh, sëñ Matar bëggoon nañ xam est-ce que yéen daara Masaliku Jinaan am ngeen projet boo xamante ne da ngeen si impliqué wu seenu murit ndax gis nañ yoonu murit mu en chantier lu man ni jumaa Masalik ak barabu jumaa Touba ni ngi sëñ Touba sëñ Sëriñ Muxtaar di yeesal ak yeneen barab yi est ce que ngeen daara Massalikul Jinaan am ngeen projet bu mel noonu à l' avenir incha allah. parce daanaka li bi woote moom woote bi mu woote ñëpp ko dégg donc noonu lañ ko déggee rek ñun ñi fi nekk yaakaar naa ne liggéey soñ sax soññ bu bëri ñu ngi ci bu projet Touba jàpp naa ne murid yi fi nekk yëpp bokk ci kuréel yi ñu ngi jëf fii moom yaakaar naa ñun fii lañ nekk fii moom liñ ci war lépp ci wàllu joxe ñu ngi ci moom moom yaakaar naa du problème benn murid te kuréel gi ñu ngi ci bàyyi xel bu baax a baax a baax ci problème social boobu ndax daanaka di Touba di fii di université bi lépp ñu ciy dayal suñu ñax di ko fa dugal loolu daal laa jàppoon ne li ma tontu loolu laay laay laa am lu ma ci leeral te it kuréel bi dafa am leen loo xam dama ko fàtte sànq weeru koor bi dañ koy dundal dundal boo xam ne. doguma sax loolu bëggoon naa si ñëw ndax weeru koor bi mel na ni fii danga di bëri euh, programme fii ne yéen seen taxawaay ba léegi rek ndax euh, da seen daara daara moom du daara bu tuut ndax fi ngeen nekk moo rëy. moo tax bëgg naa tam comme leeral nga gën a yaatal weeru koor bi maam seen taxawaay ak seen liggéey. weeru koor bi dañ fi dafa am liggéey weeru koor bi sax daanaka suñu liggéey ci lay gën a fas sax ndax bu dee bu dul weeru koor daanaka ñetti ñetti semaine ñetti fan lañu ñuy daje ci bi répétition ñetti yoon guddaajum ñaari yoon ñaari yoon la ñuy def répétition ak guddaajum muy ñett bu dee weeru koor moom liggéey bi day gën a yaatu ndax daanaka weeru koor saa bu ñu jullee timis dañ fiy jàng ba duñ julli gee bu ñu naafile bu ñu naafilee pare ñu yeewu diiru weeru koor yëpp noonu lañ ko doxalee daanaka loolu jàpp naa ne amul fenn jàpp naa loolu fii rek la am te loolu ndigal lañ ci ndax jëriñ mooy ñu ndigal loolu te jàpp naa ne moom lu mu wax rek suñu bee ko wax danga dañoo bëggoon daal weeru koor bi yu dundal xasida yi fii ba ma ko waxee gars yi ay jàmbaar lañu ndax metti na xam nga weeru koor weer ba pare ba dog jot nga ñëw fii noonu lañ koy dundalee ba weer koor bi jeex 31 trent jours yëpp noonu lañ koy dundalee ba weeru koor bi jeex te loolu jàpp naa ne loolu fii rek la am góob ma ne Tuubaa sax ma na fa ndax weeru koor bu ñu xësee sëlmal ndogu rek bu ñu xësee ndaw ba gee gee rek mooy tax ak naafile mooy tax ñu toog ñàng te loolu jàpp naa ne lu am solo la te loolu ndigal rek lañ ci am ba ñu koy def. waaw yéen euh, Daara Masalik maanaam ban bés ngeen am lu mel ne bésu siyaare bésu cant est-ce que am ngeen bés yu mel noonu. tey moom amaguñ ko ndax ñu ngi waayal ziar sax balaa yàgg bëgg nañoo dem ziar sëñ bi waaye bésu cant moom jàppaguñ ko ndax fii événement yi fii am yëpp ñun mënuñoo jàpp bés boo xam dañ ko def bésu cant ndax daanaka ñun chaque weer rek cant lay doon ci ñun ndax daanaka boo xoolee Masalik événement yoonu murid yëpp fi lañ koy defee léegi donc kon kon kon ay cant du ko jar ñun ay cant sax ñu ko def ndax daa xoolee weer bu ne rek danañ ci génn ñaari yoon wala ñetti yoon fii ci Masalik kon bu ñu ko bëggee boole ay cant day métti. Euh, jërëjëf sëñ Makhtar euh, dañuy dellu sëñ Moustapha rek mi nga xam ne ba tey rek moo fi yor wàllu cadre euh, kuréel bi sëñ Moustapha Daara Massalikoul Jinane kuréel bi ñaata kuréel ngeen fi am ak seen bésu répété. bisu kuréel gi moom daanaka benn kuréel rek la fi xanaa bu weesoo kuréel sukru laa googu ñuy dégg daanaka benn kuréel xasida boobu rek moo fi nekk. waaw benn kuréel boobu daal moo fi nekk di góorgóorlu daal as daal di ñaan Sëñ Tuubaa dimbali ñu bu baax a baax a baax bisu répété nag daanaka samedi la ak talaata loolu mooy bisu répété ak guddi ajuma gi nga xam ne animation lañ ko def di ko dundal fii di ko jàng xasida di ko defaa addi Sëñ Tuubaa daal. loolu daal mooy bis yi nga xam danañ fi daje bi jàng xasida daal. jàngoon xasida rawatina nga yëkkati kuréel nan la war a mel. weesuwut nen daal loolu ni mag ñi meloon te ñu mag ñi meloon mooy lan mooy jàng xasida ginnaaw Sëñ Tuubaa dafa wax ni ci xasidaam yi moo kawe julli gunu nangu ak koor gunu nangu ak gépp jàmm yàlla goo xam ne nag donte xasida yi ak jàmm yàlla la waaye jaamu yàlla yi wuute nañ waaw. te kon booy julli teggi ni ngay am ngir ngir dal lay jàngal nga war koo jàng ngir jëmmi suñu borom ji nga xam ne moom nga jàkkaarlool kon jàpp naa ne boo jàng xasida mi nga xam ne moo gën a kawe lépp yaakaar naa ni danga war a mel ni néew bi nga xam ne si day da dafa faatu ban di ko sang ni mi ni nga mel nga xam ni daanaka du yëngutoom du bëri daal waaw muy dal gi ak teggin yi ak lépp ci lu war ma ci xasida gi nga jox ko ndax sëñ Abdu Lahat dafa waxoon ni ndax baa yéeni nga moytu di jàng xasida di teewal seen xol ci leneen maa ngi tuum nag bu baax a baax ni baa yéeni nga moytu di jàng xasida di teewal di teewal seen xol ci leneen benn mag bi daan ne ko ah Mbàkke loolu de boo ñu ci mënee dimbali nga dimbali ñu ci sëñ laa daan ne ko bis bu ngeen di jàng xasida maam ngeen teewal seen xol ci leneen ci malaaka yi nga xam ne si ñoo gën a kawe ci malaaka yi dana danañ wàcc te buñ wàccee dana danañ yërnu seen xol te buñ yërndoo seen xol buñ ci xoolee buñ ci buñ ci jërndoo fekk ci leneen lu dul xasida yi ngeen di jàng kon boobaa danañ leen danañ danañ leen sadd te buñ leen saddee danañ leen rëbb waaw nag bis buñ yëree seen xol fekk ci ngeen nga xam ne ak teewlu ak dal ak bëgg xasida yi teew teewlu ci xasida yi moom la ñu fekk ñun dañu leen yóbbu ba ca daraja nga xam ne daraja ja nga xam ne fa la sëñ Tuubaa tolloon bi mu bind xasida gi kon mu teewal xol bi daal ci xasida yi ak maytu caaxaan yi ak sëgg ci xasida yi bañ a di jàng xasida di geesu ak di def lu nekk wala di wax ci kuréel ndax bëri na ñu koy def di wax di geesu wala ngay wax wala nit dikk déy la donte ñii dañ ko waaye lu munta ñàkk la waaw waaye man jàpp naa ne daal jànkatu xasida moom lu dul ne mag ña meloon dàkk naa ne waroo lu dul loolu waroo koo mel daal muy teggini ak dal gi ak worma ji bu baax a baax baax te xam ni li nga jàkkal loolu amul lenn li ngay jàng amul lenn lu ko fuwee kaw te comme que dañ ni ar xuraan mooy yàllaa ngi wax ak yow te jàng xasida mooy da ngay wax ak yàlla kon jàpp naa ne loolu mënoo wax leen lu dul ak dal ak teewal sa xol jëmmi suñ Tuubaa ji nga xam ne moom rek moo tax ñu liggéey ñaanalaat di ñaanalaat Sëriñ Sidi Muxtaar baki mu yàgg fi loolu te ànd ak wér di leen ñaanal yéen tamit ñi nga xam ni ndax maam di def lu baax di liggéey sëñ Tuubaa comme ne ko sëñ Abdou Lahad waxee lànk sànq kuy liggéey sëñ Tuubaa da koy ñaanal mu gudd fan ndax bu guddee fan rek maam lépp loo xam ne bëgg na ko liggéey sëñ Tuubaa dana ko def waaw te di leen siyaar bu baax a baax baax nag di leen ñaanal télé bi maanaam wala lu mu mën fépp foo xam ne bëgg na faa egg rek mu egg fa ci liggéey sëñ Tuubaa ndax commencement bi lépp am solo ndax commencé woo fenn lu dul di wër ci daara di xool ñi jàng xasida ak ñi waxtaan sëñ Tuubaa nga leen a jël jàpp naa ne am na ñeneen ñoo xam ne bu ñu tijjee leneen dañ koy ubbee ci ay caaxaan wala ñu def ko leneen waaye benn Bichri TV rek maam yàlla na wuyu tur woowu daal maam si suñu baay maam yokk mu law partout dans le monde ci fépp daal ba xam ne képp koo xam ne si daal bëgg nga cee gis sa nga gis sa bopp te loolu dana am incha allah nan dëggal jubal te leeral rek te ji teg suñ tubaa suñ kanam ginnaaw loolu ñoo ngi siyaar suñ mbokki taali bi xam ne di jégalu lépp loo xam ne dëng na ci kàddu gi suñ jëmm jo xeeba ju doye ji xam ne dañoo mënewul wax lépp di ti nag ci mbaaxu Serigne Touba gi nga xam ne moo law àdduna kàpp moom dong moo ñu dimbale mbaaxam googu moo law ba wax loo ñu wax ju jub waaw waaye lépp lu ci dëng nag suñu jëmm ju doy ji doo dong la nga xam ne dañuy dañuy ay doomu aadama rek moo tax daal mënu baaxoo woon wax tamit lii ña ngi koy doog a def daal ñu ngi ci tubu bu baax a baax di sant Serigne Touba di ñaanal Serigne Sidi mu yàgg fu lool wér barke Serigne Touba. barke Borom Touba am di rek di gërëmaat Serigne di ko kañ. di sant jëriñoom yi nga moo fi nekk El Hadj Mbacke Faye ndax liggéey bi jàppal nañu ci lool moo xoolee téere yi ñuy jàngee sax ak bagage yëpp moo ko jënd ci xaalisam te loolu baaxul mbooloo muy muy tàmbale rek nit dina jëndal ay bagage te li mu ci def ci xaalis bari la ci def jënd ko gàmmu jot daaw gàmmu daaw fukki fanweeri mbuubu la ñu ñëwal yoo xam ne yëpp ay jesneer la nga loolu nit ku ko def mun ñu laa bañ sant jëriñ ju mat jëriñ la ndax bu ko neexoon mu ne lijjanti leen xaalis rek ngeen ay téere comme ñëpp waaye xaalis bëri la te yitte gi mu ko mos a wax ci kuréel gii da ciy dem ba jeex tag te kuréel gi dama keroog benn jour dañuy waxtaan mu ne man bind leen ma ci kuréel gi su may waxtaan ak yéen maa yéen rek waa kuréel gi rek ñooy bokk waxtaan loolu nag te man nañu waajur te kilifa la loolu nag bu dee dañu koo defal te man mi nga xam ne loolu day ragalal ci man man lay waxal kooku man sama ngor mooy moo ko jàmbaar te mu ngi jàppal li mu mën lépp ñu koy defal kii kii bi nag euh, télé bi di di Bichri TV leen di ñaanal yéen kañ ndax doo xoolee événement yoonu murid yëpp man dama fay daje ñoom te jumtukaay Sëñ Tuubaa lañ te foofu muy jàll ci Amérique ay murid Sëñ Tuubaa rek ñoo fa ne xam ne daal Masalik lii rek a fi ne jàng xasida góorgóorlu ci sëñ bi jàng alxuraan jàng xam-xam lii rek ci ci lañ sax te jumaa ji bu noppee lii rek lañuy lañ koy gunge sant nañ baax a baax a baax sant nañ baax sëñ Saliou Darou Salaam mu sëñ Ibrahima rek sant ko bu baax mu sëñ Ibrahima def mooy suñu sëriñ ni ñu mel ñëpp moo tax mu mel kon mënu ko bañ a tudd ndax nit bu la defaree da ngay war a a toog ci télé sax di wax boo ko faaw nga sant ko baax sant nañ kuréel gépp nag ndax ay jàmbaar lañu ay daanaka amuñu amuñu waxtu saa su ne ñu ci kuréel ñu ngi fii ci Masalik di góorgóorlu lu ñu mën lépp ñu koy def kon nag day yàlla ñu sant leen ñoom ñëpp dëgg yàlla man mënu ma leen a fay ndax tey liggéey bi bu demul woon man damay am gàcce waaye ndam moom lañ ma ci defal lu ñu xa saa su a ñu ngi xalaat ay daaj ñu ngi xalaat lu jëm kanam rek kon man am na leneen jukkal dal sant baax a baax. jërëjëf mbokk taalibe ñu ngi si jeexantal émission bi wante laa laa ñëw tàggu dinañ ngeen teewlu si yóbbalu bés bi ak sëriñ Abdou Lahad euh, Diop Xabaan. barke sëriñ Mbacke Bousso barke sëriñ Saliou Mbacke barke sëriñ Saliou Mbacke barke sëriñ Saliou barke sëriñ Saliou. aouzu billahi mina shaytaani rajim kon de xam naa yóbbal bi moom mooy li ñu Sëñ di yóbbuloo ñun ñëpp rek ñun taalibe yëpp rek xam naa ni dañ koy wax rek ndax euh, ndax fàttalee moom mooyam la Sëñ bëgg ci yoonam wi waaye murit gu nekk rek sa bopp doy na la yóbbal bu sëkk saa boo xëyee li ngay gis ci sa benn moroom murit rek doy na sëkkub yóbbal te noonu nii rek la ko Sëñ Tuubaa jàngalee Sëñ Tuubaa ak murit li tax mu wax ko mooy xam na ni murit moom allahu rek lañ ca mën a teg mooy muridullah ci nam ma jëm ci yàlla doo ci dégg lenn lu du yàlla suñu borom képp nga xam ne doo ci dégg sant mbàkkeem wa doo ci dégg sant lennam waaye yàlla rek nga ci nga ci nga ciy yëg néeg booy dugg nag alxuraan dafa wax ne da ngay fëgg bunt ba ngir nga mën a jariñu buñ la ubbilee nga doog a ñu la joxee ndigal nga doog a dugg ca néeg ba doog caa mën a jariñu ci njariñ lu la gënal yoonu murid wi nag mu wax ni bépp taalib boo xam ni da nga ciy dugg dafa am ay melo yoo xamante ni noon la ab taalibe murid bi jëm ci yàlla suñu borom noonu la nam ma mel mu wax ni sifaatu sadiqal muridu bi iqtisaar arbaatun nazamtuhu xawfa ixtiraar asidduqu fi mahabati cheikh abad summa imtisaali amrihi xaysu wadar wa tarku i'tiraadi mutlaqan walaw bi baatini alayhi fi ma qarawaw wa maahu salabu l ixtiyaari li xusni zannihi bila inkaari fa kullu man jamaa hadihi sifaat min al muridina fay duri siqaat Sëñ Tuubaa wax ni melow murid soodeq nee na soo ko bëggee am mooy bëgg sab sëriñ sifaatu sadiqal muridu biqtisaar arbaatun nazamtuhu xaw faxra asiduq fi mahamati say xabat da ngay da ngay da ngay dëggu ci bëgg gi nga bëgg sab sëriñ su ma imtisaali am ri xay su warat waaye bokk na ci tamit waaye faw ngay jëfee ndigalam saa boo xamante ni ndigal la na su ma su ma imtisaali xay surat wa tarku i'tirad nga bàyyi lépp lay gaaral sëriñ bi donte ci sa xel la mutlaqan walaw bi baatin ali fi ma xar rawaw mboolem fu mu mën a doone muy sa xel la muy sa xalaat la lu mën a doon sëriñ bi saa bu santaanee rek bul amul dara loo koy gaaral ci sa bopp wa maahu talabul ixtiyaari nga bàyyi ko tamit sa tànn tamit nga bàyyi sëriñ bi mu lay tànnal ci léppam bu ko defee yow taalibe bi doo am ak tànn ndax dañoo wax ne am murit dara du ko moom moomul dara ginnaaw moomul dara boo jébbalee sa bakkan jébbal sa lépp ñu royee ko rek mag ñi mag ñi dafa am ci koo xamante ni ñu wax Ibrahima Diop almashari dafa wax ne maali li baghdad shawqi laa wala faasi lakin biru yajolof xad bi'tu an faasi xaysul qadimi sawa xaysul muridu xawa siran yu tahiru an kulil adnas dafa wax ni bàyyi naa Abdou Khadir Jeylaani fee bàyyi naa Cheikh Ahmad Tidiane Chérif fee waaye sama cofeel mu ngi ci Bagdad mu ngi mu ngi fa nga xam ne mooy Jolof fa sëñ Tuubaa nekk di nga xam ne fa lay dindee tilim tilim murid yi fa lay génnee gàkk-gàkk xol yi kon nag xat biantu an fasi jë moo ci mata moo ci ma ci xel mooy samay nokki sax dama koo jaayante sëñ Tuubaa nga xam ne nokki gu génnati moom na nga xam ne sëñ Tuubaa mooy borom loole nag kon sa jamono amatoo ci dara loo xam ne sëñ Tuubaa moomu ko waaye lépp la ñu war a jox sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa it ko ko joxee dafa am nu mu ko nu mu ñu jàngalee ñu joxe ko ko noonee mooy nokk gu nekk jawharatun nafisatun lam tanjali la wax yumkinu an yastaral kanza biha la yatana xayru boobu fanta biha ixlaa abdu nafsi min chan yujibu xasraloo fi chan amma iza axlaytaha fil masiya fa daak xusraanu mudium mubinum masaliku jinaan sëñ wax ne nokk gu nekk ci doomu aadama gu cher la bu fekkee ne da nga nokki te ba xam ne bi nga nokki mooyoo ci yàlla nee nokki nga perte nga ci waaye bu fekkee ne nag bi nga koy nokki da nga ànd ak ngay may yàlla na boobee xusraanun xam naa ni dañ koy tënk moom lépp mënee su ko wax waaye li ci am saa su ne mooy yu ko yëg ci suñu xol te di ko dund suñuy cër noonu la ñuy bëggee Sëñ Tuubaa bëgg goo xam ne gu sax dàkk lay doon bëgg gu sax dàkk lay doon kon ñoo ngi ziyaara mboolem ñi nga xam ne ñoo fi doon jàng xasida yi ndax ñooy ñi tëree barab bi ci Sëñ Tuubaa tey ji barabu Sëñ Tuubaa bi mooy jàngkat xasida yi zikkarkat yi ak ñi nga xam ne ñoo fi yor wàllu jàng mi ak jàngale mi ndax lin ki loo mën a mën a jàng te gisoo koo jàngalit loolee bokkul ci ah barkeem njàng wu ñu kon li ci am solo rek mooy ñu xam ni Sëñ Tuubaa moom moom lépp mooy borom lépp kenn du ci leen kenn du ci lenn bu ñu xamee ne duñ ci lenn rek danañ mën a am yóbbul bu doy sëkk ci sëñ kon foofu la ñuy waxee wa axiru daawaana alhamdulilahi rabbil alamina ngeen jëf yéen waa Bichri TV ñu ngi di ziar bu baax tey ñaanal ci barkeb sëñ ñun nag sëñ Tuubaa amuñu lul barkeem dara gënu ko rëy ci ñun barkeb sëñ Tuubaa lañ leen ngeen yokk ba yëg ko ci barkeb sëñ Tuubaa barkeb Sëriñ Saliou Mbacke kon baax na jërë ngeen jëf rabbi ya ahmadu ala muhammadi عليه خير صلوات صمدي ربي يا أحمد على محمد عليه خير صلوات صمدي باركني اللهم في الآيات واجعل فؤاتي وطن الآيات برتني ربي من الإسراك لي خالد اليقين سادراكي إليك وجهت ابتغاري أبدا فتنني وليهنا يا بدا ناجيت أبا كريما برا وليقود للجنان برا ناجيت باقيا خديما انسلا كتابه وليقود نسلا يقود لي إلى دخولي الجنان وفي الجنان ما تطيب الجنان لا خطاب راديا عنه وعن رسوله رسوله ومن رسوله لو ومن خلاني لم يهن ملكتني الكتاب فاحفظوا بي وهم فاحفظوا بي يا ربي يا اجعل كتاب كما هي عيسى أكون يا من له به إلهي ركون أنت الذي خدت المساء فسيان ليا ليا ولي يقود ليا ولي قد يقين والسهان نفيت فخري لسواك بدا يا خير مؤمن بافتخار وبدا سينتزغرك بعمري كما سينتني به مهيب المكما لخرتني يا مالك الألفاظ وفي تراخي اسمك رفاق tartilul ayatil kitaabi yuni hanil makarihi bi fadlil muhni inartilawatal kitaabi sarafat li khayri durriyal ghitafan sarafat la yantahi ila hayati suu bi sawri rabbiyal wala musiu يقود للكتاب ما يسر بلا نهاية ولا أختر يسرهم ريا رسول الله علي خير تسليمات محسلاي يسرهم ريا رسول الله علي تسليمات محسلاي ملكتني القرآن رب العالمين وخاده لي الأمين والأمين نفعني نافع نفعا فاخا وخاد للإكرام والوفاخا خدمة خير العالمين سلبت لي الكرامات معا فانسلبت يقود لي خود الكرام جيم ولي سوى نحو السوي رجيم رضي عن الله ورسوله وأهل بدر وأتاني سول فاست حياتي ببقاء إلهي وبالكتاب ورسول الله قلبي وديعة لربي ولسان مع الجوارح وفزت بيسان يقود لي بحزمة للجنة من ثانني عن الأصحاب جنة ربي يا أحمد على محمد نعم وسيلتي لربي صمدي ربي يا أحمد على محمد نعم الوسيلتي لربي صمدي jërëjëf sëñ Abdou Lahat Diop Xabaan ak sëriñ Aliou mi nga xam ñoo doon yëkkati wàllu yóbbulu bés bi ak rees bi mbokk taalibe li moo doonoon seen émission ziar daara tey ñu fekk si woon waa daara Masaalikul jaan fii si guy Masaalik di jumaa ji nga xam Serigne Touba Cheikh Sidi Moutar Mbacke moo koy liggéeyal maam tel bi Serigne Touba Xaadimu Rasuul ñoo ngi leen jaajëfal bu baax a baax di sand Serigne Aliou Diop mi féetee si wàllu caméra bi di sant Serigne Ndiaga Diop si wàllu montage bi di sant assistant di sand Serigne euh, Sayer mii moom Serigne Saliou Mbacke di jaajëfal mbokk taal bi di santal baax Serigne Matar Dieng mi nga xam suñu xayit la suñu wóoral te yàgg nañ lool di sant mbokk taal bi ku mel ne ñoom Serigne Lamine di sand sëñ Abdou Khadir Fall mi nga xam maa moo ñu yombalal lii di jaajëfal sëñ Mbacke fay nga xam ne moom mooy représentant sëñ Sidi Mokhtar Mbacke fii si Dakar di sand mbokk taalibe yëpp di sant sama rakk bu ndaw bi nga xam maanaam états-unis la nag di Mina euh, daanaka xamul dara sa waan day bëgg émission bi saa si nekk di ko jaajëfal di santaat bu baax suñu yaay kenn may ma ndaxte moom di jóg si di ñu ñaanal di jaajëfal bi si TV national ak international gépp wasal yaa xafaru bi salaami ala nabil Moustapha imaami waqut liyal yow ma maqaamaati rijal bila tasal si ma basir bi nijal jërë ngeen jëf al

كل سلمات وسالمين من كفاني صدمات سعادتي إن لله إلهي لزهرة عند سوي الملائي لم يمني عند سوي الخمار سوى رضا بخله أموري ظهرني له لدى الكتاب من السخاوة ومن كل هتاب أكرمني عند سوي الإسراك من خادني إليه بالإسراك كفيتني إبليس عند جولي ناجيته بيا نسير يا ولي كفيتني إبليس عند جولي إد جميعنا الصراط المستقيم وبزعيم كلنا بلا سقيم لك الغتاب يا قريب يا مجيب يا من بالزمن خير عجيب هب لي وللذين تعلقوا بيا هدى لخير نطلقوا إياك نعبد وهب لنا هدى به يبدنا من قبلنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا وجلنا سواد دين الفائقات ودفنا هدما والبائقات وبيننا وبهما الاولاد يا مالك العباد والبلاد وباركا في واشف أمرنا يا مصيبا بخير راد درنا لنا استجب يا خالق الكبار وجملة صغار أنت الباري وهب لنا سرية تديم الأمل سايع يا قديم اليمن واليسر وخير سددي في خير سر أتتا بمددي قد فاق كل سكر سير العادي المالك المكرم المتهدي هذا السيد بالغلام من ددي نجا بما يجيب خير سددي هذا سيد بالقرآن من ددي نجا بما يديم خير سددي فهذا سيد بالقرآن من ددي نجا بما يديم خير سددي هذا سيد بالقرآن من ددي نجا بما يديم خير سددي yàlla hubbil Mustafa sindiki yàlla wa bi xalilika